nuyu naa waaw Ngañ ñu ngi lay ah. la xaw a woon kontaan lan bëggee wuñ ko woon noonu. mais ndam nag du ndaw dañu sant yàlla rek. Ah, ah. parce que dañu indi woon loo xam ni. foogoon nañ ñu du deme noonu daal. no lan dañu indi woon lat da koy duma daan ko. daan mooy tëdd ci kawam. mais nag tànk yàlla noonu la ko dogalee dañuy sant yàlla bu baax. waaw parce que ñoom ñaar bokkuñu xam nga malgré que garab ci kaw lay fekkante mais bokkuñu parce que Lac de Guiers ku ko xam-xam ne lu muy def rek lu leer lay doon waaw looloo tax ñun yaakaar goog lañu amoon ak entraînement bu mu amoon loolu la ñu amoon yaakaar ba nga xam ne tegoon nañ ni combat bi bu arbitre soufflé du doy. gis wuti waa ji ñu bëri si làng. Mhm. non man y avait quelque chose qui m'a fait mal tu sais c'est quoi parce que Les gars yi Ils sont là pour régler la guerre Ils ba bu mu la daan Ils ba bu mu la même bu faire day victoire ba bu mu la daan dañ victoire il est jeune c'est un grand champion mais dafa faut ñëw wone boppam taxaw ci digg géew parce que gars. waaw parce que les

dañu ni boo retardé it war nga am avertissement te si tey je crois que retard bi ñëpp gis nañ ko àdduna bi yëpp gis nañ ko. CNG nag moom moom moom moo xam lu ko neex def. bu ñu defee nii lan la lay mal parce que mënuñoo gagné bu pare chaque à moment ñu gagné ñu def ko nii parce que boo xoolee Lac de Guiers Baboy Lac de Guiers dafa bokk Baboy daan ko da koo ba téye ji ko am ni ko bàyyil daan nga yëkkati loxoom gars yi dem ci Baboy CNG ni ko nangam nangam ñëw def kase ko pourtant Lac de Guiers Eumeu Sène daanu ko. non non mais réserve parce que dafa xam ni champion bu ñu demee ba egg ak moom foofu ñu jox ko le victoire bi rek jox nañ ko ko. mais Mame Mboup ku wax Mame Mboup ne ancien lutteur du Waalo wax sa carrière tuuti Mame Mboup. waaw non sant yàlla rek. waaw loolu moom. yéen ñu xam làmb laay waxal parce que léegi làmb ji yaakaar naa ne leneen moo ko yàq. mais yéen ñu xam làmb fekke ngeen. mais man it damay lancer benn message di gëlëm Alioune Sarr bu baax. Alioune Sarr xaw ma xaw ma ko. man ba Alioune Sarr. bu CNG bu ancien.

Ah, dégg naa ko démb bu ci kàddu sax ma gars yi di ko wax Franc mu naan nii ak nii mais il a parfaitement raison parce que moom rek moo fi may sens xale yi. dama ni la de guerre 2 man bu ma ko doon jox combat tey dama naan euh, comment il s'appelle euh, Tapha tabatine. par force dafa war a bëre ak la de guerre 2 xam nga lan moo tax par force nit bu la yoralee bor da nga koy fayeeku si. te 2007 la woon. waaw Gris Bordeaux. waaw de guerre waa këram yëpp la dóor. xam nga ku dóor Papa Sow. dóor Batika. dóor Babacar Diallo. ah du dóor sa wa dóor dóor da koo waroon fay bu doon maay giri damay fay Lac de ni ko ñëwal lu nga def ñee ma def la ko mais je pense que ñemewul Lac sama gis-gis bu ndaw man loolu laa ragal parce que lamb loolu mooy affaire bi ku daan sa waa kër da nga leen war daan parce que keroog Tafa Gueye ba mu daanee Lac de Guiers 1 Lac de ko bu ma la daanul sama xol du sedd te keroog da koo daan yow daal gis mooy combat bi Tapha Tine dafa war a ni man prouvé naa ba yeggaat fa ma yeggoon lat kaay ma tëral la ndax kenn mënulaa laa tëral dama lay duma daan la loolu la Tapha Tine war a wax mais dafa ragal lat parce que xaalis la ñu wut ñoom ñëpp koo wax ñu ne VIP na ñëw bëreeg la mais mam bu la doon fekk écurie Waalo ngay daw di entraîné yóg sa doomu ndey liiru jaan bi nu mu meloon ak am na waaw noo dañu sant yàlla baax parce que sant bi mooy dañu am ay xale yoo xam ne ñëw nañu nekk relève

ñu topp seen rakk comme nu seen mag yi toppee woon ñoom comme nu ñu toppee seen rakk yi toppee yàlla defal ñu sutura waaw ba booy ci ñëw ñoom it topp seen ginnaaw moom làmb ji waaw jërëjëf ñu lay siyaar baax waaw dama dugg. waaw non xaaral ma dugg à 17h 23 minutes la wàcc. Alioune Seye 17h 23 minutes la ñu vigilant ci ginnaaw ñu xool ñu xool bu baax ci ginnaaw jël ko jël ko waaw gaay dañ ko dina xaar da lay yàgg da lay yàgg mo jàpp zoylu saay anu ndox yi ndox yi anu war taxaw war ñoo taxaw de xaar leen xaar leen ñu jàppal ni ah dama do dugg ci ñu somo tey dañ ko nar a bot li ma gis dañ ko war a bot dañ ko war a say deux dafa mel ne dañ koy boot moom la ñuy woowee l'extraterrestre waaw ñoo ñoo ñoo jàll. gars yi fàjj leen fàjj leen. may leen ko may leen ko mu ñëw eh. may leen ko mu ñëw.

Lamine Kaye def ndànk rek waaye bàyyi ñu dem taxawal maay dugg bu des maay dugg bu des taxawal maay dugg maay dugg bu des taxawal maay dugg taxawal bàyyi ko bàyyi ko eh du ma taxawal waaye ñii bu indil coow nan bàyyi ñu ñu dem la waaw waaw waaw déglu ma la léegi dama ni. yaa ngi ci 19 personnes. benn lañ ko def waaye na dellu ginnaaw dellu ginnaaw kan la kii chef ñi chef nañ dellu ginnaaw tout le monde ñoom ñoom lañu reculé ñoom lañu dellu ginnaaw ñoom ñoom lañu dellu ginnaaw ñoom lañu fi jógee ñoom ñoom mais ñu suñu jàmm déedéet déedéet déedéet Roné mais Roné mais Roné